Vous avez la parole suivie de Serigne Abo Mbarke Thiam. Ahonzu billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. asalaamaaleykum monsieur le président de l'Assemblée nationale. asalaamaaleykum sama collègue député yi fi toog yëpp. monsieur les ministres ñu ngi leen di nuyu. di nuyu seen ay collaborateurs. di leen dalal jàmm. monsieur le ministre. projet de loi numéro 11 2024 portant révision de la constitution moo ñu tax a jóg ngeen indil ñu euh, la suppression des deux institutions la HCCT et la ñu ne promesse la woon boo xam ne bi ñuy def élection présidentielle dañ ko promettre woon les sénégalais may wax ak les sénégalais di leen wax c'est à vous de juger ndax promesse yi ñu defoon yaakaar naa ne bëri na kon nag bu ñuy indi te wax ne rationalisation la ñuy ut dañoo waroon def package bu ñëwee ñu examiner xool parce que nag loolu la ñu fi tege lépp lu fi dugg di loi suñ ko xoolee xam ne lii c'est l'arrangement des sénégalais on va le voter sans problème. monsieur le ministre ma jóge ci département Kaffrine di la yóbbante félicitation ci le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre monsieur Ousmane Sonko monsieur le ministre ma lay laaj rek comme da nga fay ñëw nekk ministre de la justice ngeen nommé fan yële rek trois magistrats pour euh, le tribunal de grande instance du departement de Kaffrine ñuy laaj kañ ngeen koy ubbi di leen laaj kan ngeen ñuy tabaxal tribunal boo xam ne diñ de son nom la monsieur le ministre d'après conclusion bi ma gis ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw muy seen ay député yoo xam ne da ngeen a ñëw nee ngeen pour défendre lii nga xam ne mooy suppression bi da ngeen wax ne yéen 15 milliards yi ngeen yaakaar pour liggéey Sénégal pourtant yéen de da ngeen a am ndam loo xam ne kenn amu ko premier tour sénégalais yi far leen falin bu rafet bu mucc ay bu kenn mës a am. ngeen waroon leen delloo njukkal muy ñan lee jakartaman le secteur privé agent ferraille yi ambulant yi rawatina nag transporteurs yi fi mu nekk ñëpp a ngi jooy la presse ñëpp a ngi jooy ci Sénégal goo xam ne Sénégal la goo xam ne féppay metti ni ngeen ñëwee am ay tracteur ak ay machine yoo xam ne daf doon war a dem ci baykat yi président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak son ministre de l' agriculture indi ko ñu stocké ko war koo séddale ngeen dem ne yéen a ko fi indi war koo mën a égale te dañ leen koy nangul parce que état continuité la noonu ngeen waroon a mënee ne sénégalais yi kat ñun dañoo télé parce que télé weesuwul man am njaay ñii bi de indi naa fi projet de loi boobu monsieur le président de l' assemblée nationale dama ne kañ lañ koy ñëw indi ko assemblée ñu voté ko parce que maa ngi ko déposé woon depuis le mai 2024 muy projet de loi criminalisation l'homosexualité loolu yàkkamti nañ ko parce que demande sociale la beneen bi ci topp monsieur le ministre Ousmane Sonko dama ko xeexal fii 2019 booba du dara yaakaaruma ci woon moom dara te parti au pouvoir laa bokkoon ñu mën lépp sañ lépp ñu ne dañuy génn bu Ousmane Sonko dee wax ma ne du ma génn parce que man injustice du ma ko du ma ko cautionné j'étais la seule députée du mouvance présidentielle qui restait dans la salle injustice boobu laay bañaat mu nekk premier ministre war a ñëw présenter DPG ñu war di waxtaan ak assemblée di consulter wu ak ñoom te defu ko te nit ki yàlla du la fal fayul la ngay fayantoo te ci logique fayantoo la nekk moom ak basiru jomaa Diakhar fay te loolu du doxal réew mi Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar ñoo bokk gaal gi ñun dañuy ñaan mucc réew mi mucc te réew mi tey ci loxoom la ko teg kon li ko waroon mooy mu topp ci président de la république ndaxte président Macky Sall dafa weñaar loxo ñëpp taxaw ngir bëgg réew mi yéen a doon jooy fii waxoon naa ko fi di wax nañ libéré Sonko libéré Sonko amnistie bi bu amul woon dana mën dana mës doon président de la république kan moo fi indi loi amnistie c'est le président Macky Sall yéen a koy critiquer mais bu dul woon moom kenn du fi toog ci yéen te defu ko ngir intérêt mais c'est l'intérêt de sénégalais man nag damaa gëm sama bopp judduma woon pour nekk député maa ngi bay samay tool tey laa ko gën a may mën a bay te maa leen di invité ngeen invité seen de l'agriculture mu ñëw xool lan la ñuy def ñun dañuy liggéey xam nañ ne seul le travail mais réew mi ñëpp ci nekk kilifa diine yaa ngi fi bàyyi leen yi di saaga kilifa diine yi di xas nit ñi di yàq gor ñi. ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seeni collaborateur di nuyu euh, madame Binta Ndong mi nga xam ne mi ngi nekk ministère de la justice nekk fa seete monsieur le ministre aujourd'hui nous sommes réunis pour aborder une question cruciale qui touche au cœur de notre engagement envers l'efficacité de notre gouvernance et bonne gestion des ressources publiques en tant que représentant du peuple Nous avons la responsabilité de prendre des décisions qui renforcent notre démocratie et améliorent le quotidien de nos concitoyens.